am na ay force ya nga xam ni seen problème yëpp mooy figure historique bu am ci Sénégal rek du wolof ñu commencé ko ci sunu guide religieux yi mu di Cheikh Amadou Bamba Mbacké wala laaj Hadj si Sy wala soxna maam Diarra Bousso dinaa leen jox document bi soxna maam Diarra Bousso bés bu nekk nga dégg ni mu ngi dëkk bi ñu juddoo Goléré fële ci Fouta or dem ne ngeen def enquête bu gën primaire mi ngi juddoo Mbusoobe à 7 kilomètres de Daara Jolof ñëpp xam na fu mu dëkk 7 kilomètres Daara Jolof kan mooy waa waajuru maam Jaara Buso ma Buso a Mbaay waaye ma Buso Awa Mbaay kooku wala few ku jur ma Buso Awa Mbaay xam na mu tuddee ma tabara Buso ma tabara Buso kooku wala ku kenn mooy jur maam Jaara soxna astuwaalo ñang astuwaalo Mbàkke kooku wala few soxna was astuwaalo Mbàkke kan mooy yaayam ndumme daadu ñang kooku wala few mu juddoo ci dëkk wala fii màgge fa sëñ Tuubaa ci boppam bés bu nekk ngeen dégg ni sëñ Touba Bala sant ba bi Mbàkke la moom mu ngi nekk Mbàkke déedéet wolof yu njëkk yi nekkoon Fuuta au sixième siècle ñu leen di waaye jaawogo Mbàkke ki la bokkoon ak Buso wolof yooyu ñoo njëkkoon nekk Tekruur ba pël yi ñëwee nag coloniser leen def leen xaal pulaar lakk leen pulaar am na ña nga xam ne nangu nunu toog foofu nekk xaal pulaar nekk fa Mbàkke ak Buso mais am na ñenn ña nga xam ne du ñu des Jolof ndax Jolof ak Tekruur benn la woon moo tax ngeen di gis Mbàkke Fuuta Mbàkke Jolof Buso Fuuta Buso Jolof mais Mbàkke moo wax leen rek yàggam buuru Namandiiru bu mujj bi Waali Ndaw nga xam ni euh, buur ba Jolof Cukli Njiglaan Njaay moo ko rey au quatorze au quinzième siècle 1460 buuru Namandiiru bu mujj bi mu ngi tuddee Waali Ndaw xam ngeen nan la yaayam tuddee Mberu Mbacke. waalu Mberu Mbacke Ndaw. waalu Mberi Mbacke Ndaw kon Mbacke yàgg na waalu Mberu Mbacke Ndaw boobu nag jabaram sax bi ngi tuddoon Igin Jaw mooy mbaamu Ndaw Kundaay yëpp maamu Ndaw Kundaay yëpp yaayam Mbacke la sant léegi pour nga xam ni Mbacke wolof la dangay xool kal ña nga xam ne ñoo nekkaale dëkkaale ñoom ñooy kalante mooy Ndaw ak Mbacke ay kallu donc Mbacke santu. wolof teg ci nag ñun wolof yi nit ki ñi ngi xam ci ban famille nga bokk ci sa néegu ndey sa miin wa séeréer di ko woy tiim wolof yi du ñu am néegu ndey sëñ Touba nag ci boppam dafa amoon benn néeg bu mu bokkoon néeg boobu dafa siiw nekk néeg bu am maanaa ci diggante jolof ak kajoor ndax wolof yi kenn du wax ni fii nga bokk du ñu wax ban néeg nga bokk bu ñu bëggee xam ban famille nga bokk du ñu seet sa famille maternelle ndax famille maternelle moo lay jox pouvoir famille maternelle moo lay jox xaalis famille maternelle la ñuy xamee nit mën nga sant jaxumpa lu la neex mais sa famille maternelle ngay nekk dammel ci ngay nekk burba di ngay nekk brak Lat Joor géej la moo tax mu nekk dammel sëñ Touba nag moo wax leen fan la bokk jàpp leen sëñ bu Touba gonjoox la néegu gonjoox la bokk ma wax leen nag ñan la ko seigne Touba bokkal gis ngeen ku jur bayu ladjor grand père ladjor mok seigne Touba ñoo bokk néegu ndey frère ladjor général ka nga xamni ne moo armée ladjor Joor yëpp yëpp yëpp yëpp ñu koy wax gankel mom du xuréeja mom mok mok seigne Touba bokk néegu ndey deuxième femme Bourba Jolof Alburi ndjay gañ Siri Jóob mok seigne Touba bokk néegu ndey wa léegi seigne Touba nan la bokkeek famille maternelle ñaareelu jabar Bourba Jolof Alburi ndjay euh, grand-père u Lat demi-frère u Lat Joor fan la bok, kooku mi ngi pire, haute hiérarchie euh, euh, féodale wolof yi moom bind na ko ba pare wax na ne buñ wolof mais bis bu nek ngeen gis ñu fab ko bëgg ko yóbbu ci ci tukulër yi noonu bu ñu leen yóbbuwulee ci tukulër yi ñu fab leen yóbbu leen ci lébu yi loolu à la limite on sent qu'il y a un complot complot boobu nag nous ne sommes pas d'accord xeexunoo kenn bëriwunoo kenn contre nu kenn defuñu benn hégémonie mais nag lii ma leen wax fii tey wóor na ma ni am na xale yu bare daan fi jóge mësuñu ko xam loolu rek lu ñu jóg loolu moo yëkkati ngeen xam loolu te nag li ngi leen di wax li duñ leen koy jox document ngeen vérifier ko ba dee wala fi ñoo njëkk fuuta duñ leen di jox document ay professeur universitaire tukulóor ñoo ko wax ñun wala fi waxuñu ko ay professeur universitaire tukulóor ñoo bind ni ñun de tukulóor yi wala fi yee nu jur mais loolu bari xamuñu mais da ngeen ko war xam lébu yee tam bés bu nekk ñu ne ah way vrai wolof lébu la lébu ci boppam benn suuwuru wolof la donc jox naa leen juróom-ñetti critères yooyu pour bañ jàggal wax ji ndax am na ñeneen ña nga xam ne mu di euh, Ousmane loo ak Babacar Mbaye Ndak Ousmane loo ci boppam téere bi ngeen di gis ba nga xam ne dekk ci wolof moo ko bind ndax moom ñun am na sax lu mu nu rawe ndax ñun intellectuel lu nu mais intellectuel francophone lu nu wante moom moo gën assumé moom intellectuel la mais intellectuel wolof la ndax dafay bind téere ci wolof te man man moo ko bind Babacar mbay Ndaak mi am na lu mat fanweeraat ñeent fukki at lépp la nga xam ne lépp la wax la tradition la ci wolof mi ngi ci